heure jotee Ousmane Sonko ba mu génnee kër cité kër góor gi ànd ak mbaboram maanaam nag ko jaarloo fi nga xam ne mooy corniche bi Ousmane Sonko ñi mu àndal lànk kandaare na duñu jaar ci fi nga xam ne mooy corniche bi maanaam ci avenue Cheikh Anta Diop jaar ñu ne ko doo jaar Ousmane Sonko def na lu topp ñetti waxtu yoo xam ne maanaam def na ko ci yoon wi embouteillage boo xam ne fu ko waay natt daan na koy passé jàppante yu rëy daa de say am yéene kaay gi nee mujjee jël Ousmane Sonko jël ko dugal ko ci seen oto yóbbu ko gendarmerie bu Colobane ba pare nag jamono ji la nga xam ne moom la ñu koy tuumal maanaam trouble à l'ordre public yéen a kaay gi nee démb jàppante yi ci Ndakaaru taroon na loola bëri na ci ñoo xam ne am nañu ay gaañu-gaañu am na ci ñu ñoo xam ne teg nañu leen loxo xale yi di sànnan teg tàkk der yi li nga xam ne mooy ay xeer ak i grenade lacrymogène yéen a kaay gi di Dakar Times nee bi maanaam tàng na genn xeetu tàng goo xam ne fu ko waay natt daan na koy passé a passé ndakaaru njaay ci boppam ma mujjeen bloqué woo yéen a kaay gi di direct news nee am na lu ñaaw a ñaaw loo xam ne démb gis nañu ko ay ponkal yoo xam ne maanaam ay nervi lañu pouvoir bi ñoom seen bopp ñoo recruter ñi nga xam ne maanaam ñooy ay nervi yor li nga xamante ni mooy ay ngàndaay maanaam ay yet loole dafa ñaaw loola yéen a kaay gi di Les moom nag la mu xëy wax mooy Ousmane Sonko victime de lâche kidnapping dañu ko kidnappé moom Ousmane Sonko démb daal di koy enlevé ñi nga xam ne ñooy ay avocat am daal nañu koy ñaawlu bu baax a baax ñu avocat yi nag ñoom nee nañu dañoo demoon sax doon jëli Ousmane Sonko ngir yóbbu ko waaye nag ba ñu demee dañu ko yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na ndaw ñi ñoo génn daal fupp janoo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi defante ak ñoom ba mu baax station yi bari yoo xam ne daat nañu koy yàq Auchan yi dañu ko vidé yenn yu di koy taala yéene kaay gi de la turbine na ndakaaru njaay démb tàngoon na jër Ziguinchor tàngoon na jër Saint-Louis tàngoon na jër Diourbel tàngoon na jër Bignona tàngoon na jër ñi nga xamante ni nag maanaam ñooy armée bi dañu leen a mujjee woo opposition bu Sénégal démb janoo nañu ak taskatu xabaar ji nga xam ne moom la ñu dëgmal maanaam ni ki suba danañu amal li nga xam ne mooy ay manifestation ndax Macky Sall lii nga xam ne moom la nekkee ci réew mi maanaam mënatuñu ko seetaan ak jaay doole gi nga xam ne maanaam trop c'est trop yéen a kaay gi de libération avocat yi Ousmane Sonko yi nag Ousmane Sonko wax na leen lu laar ni ki démb ba mu janoo ak enquêteurs yi danañ ñi daal du leen ko yomb la la ni ma tudd sax du ma leen ko wax enquêteurs yi démb dañoo laaj Ousmane Sonko na ko ana nan nga tudd mu ne leen du ma wax nan laa tudd Ousmane Sonko noppi kandaare ne naa si sañ ñi nga xam ne ñooy étudiants yi démb kenn demul ñu des maanaam avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru étudiants yi dañu koo tàngal ba mu tàng jër université Gaston Berger étudiants yi dañu koo tàngal ba mu tàng jër Sigicoor démb dañu koo tàngal ba mu tàng jër Ndakaaru Njaay démb dañu koo tàngal ba mu tàng jër yéen a kaay gi de la sa nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa Pastef jamono ji résistance bi nga xam ne moom la ñu woote woon maanaam sumb nañ ko nag yéen a kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy nervi yi maanaam ay nervi démb ñoo nekkoon place force de sécurité yi bëri na ñoo xam ne dañu koo ñaawlu yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne nag ñooy waa Amnesty International ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko Ousmane Sonko arrestation bi ba pare nag di sàkk ñu daal di koy libéré yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu ndakaaru njaay jël dem démb pëccaxoo woon na ndakaaru démb neexul ba neexul waaye tàngoon na jër tàngoon na jër gouverneur bu Dakar démb dafa mujjee woo ñi nga xam na ñooy armée bi ministre de l'intérieur nee na force restera à ñi nga xam na ñoo ànd ak Ousmane Sonko ñoom nag nee nañu daal danañu résister yéenekaay gi nee na préfet bu Ndakaaru démb dafa wax ñi nga xam ne ñooy gendarme yi na nag Ousmane Sonko mi maanaam dafay lay am lay amal ab mandat dem ne ñu koy yan xam ne ñooy askan wi topp ci ginnaawam ba ci presse bi maanaam dóor leen leen ay grenade lacrymogène maanaam préfet bu Ndakaaru Alioune a baax ne xanaa xamul ne Ndakaaru ak pëccoxoo gi nga xam ne pëccoxoo na ko ni démb kaddu yi nga xam ne préfet bu Ndakaaru yëkkati ko bokk ci li nga xam ne moo ko waral yéen a kaay gi di Les Échos ñu koy fekk fa Serigne Abdou Aziz Dabakh moom nag nee askanu Sénégal ñoo war jóg ñoo war fipp dagg bu mu njaam gi ndax am na lenn loo xam ne maanaam waruñu ko may Macky Sall Macky ni mu yore réew mi baaxul du suñuy kaddu kaddu Serigne Abib Sylla da baax tiwaawoon yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne nag ñooy opposition bi député yi bokk ci kujje gi démb ñoom jokkoo nañu ak conseil constitutionnel yéen a kaay gi nee jokkoo boobee nag dafay dakkal procédure bi nga xam ne jëm na ci dindi malaanu kiraayu Ousmane Sonko ko ci conseil yi journal salon bi ni ki démb nag déglu nañu ko waaye contrôle judiciaire ba pare wax ko na ko bul contacter Ousmane Sonko bul contacter Adji Sarr ba pare sa salon boobee na ko tëj ba pare mbir mi tamit bul ci wax ci kaw maanaam ñëpp di la dégg yéen a kaay gi di réew mi quotidien nee na li xew ci réew mi doy na waar laas yéen a kaay na ko ëpp na tool ndax ki nga xam ne mooy Guy Marius Sagna mi ñu dugal ci kasu bi ndekete yoo dañu koo mi ba mu set wecc dugal ko ci ab poqo yéen a kaay gi di Stades bàyyi mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr wax ci Premier League tey jii Liverpool bu Sadio Mané dina dalal Chelsea bu